L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه alhamdulillah ñu ngi ci juróom benneelu guddi ci guddi weeru koor di amal juróom benneelu jotaay ci jotaay shahru ramadan al mubarak ci buntu ragal yàlla gi nga xam ne moom la suñ borom wax ne moom lañu war a ci koor motax war nañuy nafar ay wax ci ragal yalla yépp ngir ñu mëna dajé loolu ñu wara jëlé ci koor gi ndax kat def naa mbir ba mu yegg te lañ ca doon wut amoo ca jëmmi def ga rek du jariñ bu fekkee jotoo ca la nga doon wut ci ay suñu borom di tuddu melokan yi tax ñu amul ragal yàlla ci suratu taaha ci aya temer ak fukk ñet mi wax ne wa kazalika ansalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id laallahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra nee na alquran daf ko wàcce mu nekk ci làmmiñu arab quraan arabiyan ndax làmmiñu arab dafa am jagle goo xam ne yeneen làmmiñ yi yeneen làkk yi amuñu ko li ci nekk ci baat yi li mu mën a ëmb ci ay maana loolu amul ci yeneen làkk yi ba tax xam-xam bi ñuy tuddee albalaaxa nga xam ne day wane matuk ay wax ca maana yaag ca rafetuk baat yaag ca waxiin yu jub yaag yooyu ci lamiñu arab rek la am mu wa sarrafna fihi min alwaid nee na xeetal na façon yi tëkku yi nga xam ne moo nekk ci alquran façon tëkkoo yi yépp yoo xam ne dana tax nit ki mën a ragal yooyee nga xam ne nar naa xew ëllëg ba du ca tàbbi léeg-léeg suñu borom tabaraka wa taala tudd ak maandoom ak ni nga xamee ne noonu lay faye kenn ku nekk lam jëf mu wax ne wallahu azizun zuntiqaam yàlla ku tedd la waaye ku mën a delloo nit lamb yeyoo ci jëfam ju ñaaw la donte yërmandeem nag moo gën a yaatu lépp waaye nag yërmande ji itam nag daa am sàpp yu tax nit ki jot ci te mooy ragal yàlla gii ñuy waxtaane rek fasa aktubuha lillasina yattaqun wa rahmati wasiat kulla shay waaye fasa aktubuha lillasina yattaqun sama yërmande ñëpp ak lépp xaj nañ ci waaye nag maa ngi koy jagleel ñu ragal yàlla léeg-léeg mu tudd xeet yi jiitu woon nañu alkoo ci seeni bàkkaar fa kullan axasna bi zanbi fa minhum man arsalna alayhi xaasiba wa minhum man axasatuhu sayxatu wa minhum man xasafna bihi al ard wa minhum man axraqna wa ma kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimun nee na ñi fi jiitu woon di def ay bakkaar kenn ku ne xalaat nañ ko ci sababu bakkaaram am na ci ñoo xam ne ay xeer lañu leen yónnee arsalna alayhi xaasiban mooy nitu luut am na ci ñoo xam ne malaakam moo xaaju ci seen biir axasat xu sayxa mooy nitu sa samut am na ñoo xam ne suuf si moo xar ñu dugg ci lu mel ne xaaroon am koo xam ne géej gi ci la lab mooy ku mel ne firawna mu ne ñu ñëpp nag yàlla too ñu leen de wa ma kaana allaahu walakin anfusahum yaslimoon wa ma kaana allaahu li yaslimahum waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp yooyu yëpp nag ak waar lay doon ci koo xam ne gëm na yàlla gis ñi ko fi jiitoon fi ñu jaar fañ mujj su ko defee mu wattandiku la waral loola léegi-léegi muy tudd melokaani safara ak la fa am ci xeeti mbugal yooyu yëpp ay tëkku la yoo xam ne rek ngir bañ nga tàbbi ci yëgal la ko ngir bañ nga tàbbi ci bañ ca am mbett defe ne loolu amu fa moo tax lépp luy xew foofa rek suñu borom leeral na lépp wa sarrafna fihi min alwaid ndax lan la allahum yattaquun ndax ñu am ragal yàlla te ragal yàlla nga mooy ñu moytu terey suñu borom yi tabaraka wa te jëfe ay ndigalam aw yuxdisu lahum zikra wala sax tëkk yooyu tax ñu gën a sawar ba gën yee salaat seenug jaamu yàlla seenug topp yàlla seenug góorlu ci diine kon ñaar lañ ciy jële ci boo dee dégg tëkkoo yi la alquran di nettali ne man na dal nit ki ëllëg ak yi daloon ñi weesu woon te sabab ba leen ko yóbbee woon ba tey mi ngi fi dana tax nga moytandiku ay tere waaye dana tax nga góorgóorlu ci topp suñu borom tabaraka wa taala loolee lañ ciy jëlee kon mooy ak ragal yàlla kon bu dee jàng alquran di ko settantal di gis tëkkoo yi suñu borom di tëkku te tëkku ba du tiital waaye yëgal la la rek nga xam li nga xam ne moo ne ci sa kanam ndax yow man saqiilan bis bu diis la wa yazaruuna waraahum yow man saqiila leen nit ñi àdduna lañu bëgg lool inna haula yuhibuuna al aajila àdduna ju teew ji ñu bari seen yitte yëpp àdduna rek la moo ne day bis bu diis mi ngi seen kanam boo xam ne bu jar waajal la kon nag alquranul karim ku koy jàng te di ko setantal aaya boo yegg si bu nekk bu dee lu suñu boroom di dige la nga góor góorlu ca lay tax a jot ca dig ba bu dee lu muy tëkkoo la nga góor góorlu moytu ba doo dajeeg loolee muy tëkkoo loolu koy def sax ci ba dajeeg borom bi tabaraka wa taala dangay daal di texe ndax fekk na nga am ak ragal yàlla yàlla ko yàlla defal صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين